Eh, sa bu waxtu wi jotee ñu indi leen benn eh, waxtaan ñu tudd ko waxtaanu koor tey jii nag Oustaz Ibrahima Tine dellusiwaat ci waxtaan yi nga xamanteni baxu nang ko and ak euh ci ko indi wat benen tombu waye lepp mu aju ci bir koor gi ginnaaw bi nga xamni ni nañ leen ci li nga xam mo jall ci seen commentaire yu am solo yi nga xam ñu koy dégg ak seen wax yu rafet yi nga xam ñu koy dégg. ak seen jubbanti yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci yéen ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu li ngeen ci sant li ngeen ci rafetlu dinañ ko gën a yokk bu baax a baax li nga xam gis nañ ngeen ne mën nañ ko defaraat incha allah des nañ ko mën a bu baax a baax kon jaa ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan incha allah bu loolu jàllee nag euh, ñu dellusiwaat ci li nga xamante ni moo di weeru koor weeru koor ñu wax leen ne weer la woo xamante ni tànneef da cee am. wéru koor mu doon wéru woo xam dafa am jagleel yu ci am wéru koor dafa am euh, ngénnul yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da ko ci da ko cee def ni nga xam ne weer yi niñ ko xam ñun ñëpp xam ne fukki weer ak ñaar la ci biir fukki weer ak ñaar yooyu am ñeenti yoo xamante ni moom la suñu borom subhanahu wa taala tànne mooy ashhurul xoom ci biir yooyu bu tànnewaat beneen tànneef muy weeru koor moom solo lool ngir day def nit mu am ñun tànne ci man-man ci am-am ci xalaat ci kattan ci lepp non la koy def ci bes yi def bésub aju mu gën ci bes yep non lay def ci barab yi def barab yi màkkatal mukaram karam ak madina ji gën ci yep bu sëñ touba chamat bam doon wax ne ma ngi ñaan sama dekk bi di Touba ak daru salam ñu melni ni Makka ak Madina bu ngeenel yag na am ngëneel googu nag moo ci wéru koor ci biir ngeenel yoy la tamu ci wéru koor la wacce ngin ngi eh, eh, téere muy arxuraanu karim ci biir weeru koor woowu ci guddi gu sel la ko wàccee ci laylatul xadr ci biir weeru koor woowu ci la joxe ngin gi mu def sallallahu alayhi wa mu teg ko ci loxoom muy weeru koor shahru ramadan mubaarak kon loolu ay ngëneel la ay tànneef la yoo xamante ni weer weeru spécialité bi ci am waras nañ koo mën di gën a bàyyi xel bu baax a baax ci biir weer wi la wax ne nit ku ne loo jëf rek. mën naa laa wax ne xëy na la lay fay dama lay boole kenn wala nangam ku def nangam bi nga am nangam waaye ci weeru koor la wax ne lu ci waaye def dama koy fullu ba noppi waaye maa ngi ñëw nag fayal la sama bopp anaa ajsibihi kullu euh, kullu amri ibn aadama law illa saw wa ana ajsibihi jëfu doomu aadama bu mën doon rek ñeel na ko moom moom bu defee lu baax baax na bu fekkee leneen ok mais nag jëfi euh, koor moom man sam bopp maa koy fayal sam bopp loolu tànneef la ba léegi ñu gis na itam ci biir weeru koor woowu la wax ne euh, képp koo xam ne def nga benn ma fekk si la ci benn boobu fullal la ko ba ba fukk ma dolli la ci loolu itam ngénneel la ci biir weeru koor la wax képp koo xam ne ñaan nga ma loo ma ci ñaan incha allah dinaa ko nangu biir weeru koor la wax ne ajjana dañ koy tijji duñ ko tëj mukk ubbi ko afal ko bu képp koo xam ne sax yàlla tere genn nga adina sax mbugal yi nga xamni mom la ñaan mbugal ñi nga xamni moy ci bamél yu mel noonu du am ndax lan tànneef weer koor yi nga xamni ne ci biir weeru koor lañ gis ni mo wax ne buntu sawar yëpp tëj naa ko benn du tijjeeku loolu itam tànneef la nga xamante ni xëy na kon yeneen yi yenen weer yi yenen ay ay bëss yi nga xam mom lañu xam dañu gis sawar gu day ubbeeku ko day day day day ubbeeku ko mom xëy na nang naa ci weeru koor rek lañ gis ne dañuy ubbi buntu neex-neex yi tëj buntu naqar-naqar yi loolu ci weeru koor ci biir weeru koor la ñuy gis ne dañuy tënk saytaan duñu mënal dara duñu gis duñu jax-jaxal du du féewali suñu diggante ci biir weeru koor lañ ko gis kon jombul ci yeneen weer yi da gis ñu ngi ubbi ñu ngi yaatal ñu ngi afal bàyyi seytaan mu def liggéeyam la ughwiyannahum ajmain ila ibadika as-salihin dinaan beeloo ñoom ñëpp moom de sa jaam yu sell yi nga xamante ni dañ laa déggal te nangul ci biir weeru koor woowu ngay gis képp koo xam yaa ngi doon def sifaan ba da ngay ne weeru koor moom dama koy màggal dama koy sàllal dama woor euh, jéem koo sàmmante jéem a sàllal bu fekkee ne ku doon sàllal nga yokk bu nekkoon ko kuy sàllal mën nga ko gën a euh, yokk baax a baax loolu gis nañ ne euh, doo doo sàllal itam da ngay gis ne da ngay jéem a sàmmante ngir di sàllal loolu ci biir weeru koor bii lañ ko gis loolu nag ajiwul góor ajiwul jigéen. ay ajul ci mag ajul ci ndaw ndaw ñi sax ñoo gën a sonn ci koor gi ndaw ñi nga xam ne wax nañ leen ne koor sax waru leen waaye nag képp koo xam ne mën nga koo digal sa doom itam ngir mu tàmm ko bu màggee ndaw ñoo ñoo ci gën a sonn tey gën a sonn ci nii damay woor suba damay woor donte mën naa am sartuy koor gi sàmbute koor gi mën naa xaw a def ci ñoom waaye ala ñu ngi sàmmante ne dañu woor loolu itam am na lu muy firndeel am na lu muy junj bu baax a baax loolu yaakaar naa kii ne ci biir weeru koor woo itam ngay gis ne Euh, lu bax da melni ni la baxé waxtu wu la baxé wér wu la baxé way rawaté ni ci biir wér koor wi da gis ñu bari diko yok yaatal ko nga xamanteni bo doon def ben doli ci fuk joxanté ay sukur koor yu balanti ak euh, fekkante yoy yëpp da ngay gis ni socialement da ngay gis wér koor da am lu muy dundal ci jëflanti doom adam yi ndax euh, da ngay gis rek ni nañuy maase ji tuk tay sax sax tay dimbalan ci biir lu wér koor dañ koy dañ koy wax diko sañé da ngay gis weeru bu ñëwee nag dangay gis ne loolee nga xam ne moom lañ doon soññee ba weeru koor ñëwagul da ngay gis ne loolu dañ koy gën a yaatal dañ koy gën a yokk dañ koy gën a def te benn fitna wala benn coono du ci aju ci ñi nga xamante ñooy kii loolu ci weeru koor weeru koor rek moo ko am ci biir weeru koor woowu ngay gis ne lii ay la néew na nga gis beneen bés bu bokkul ci weeru koor ñuy sàmmantee digle fonke noonu nga xam ne mooy mooy mooy naafila ñu bu fekkee ne góorgóorlu ba julli safa ak wetar doy na ci ñoom waaye nag da ngay gis ne weeru koor bu ñëwee dañuy dem julli safa ak witar balaa ñu ko julli itam am na ay raka rakaat yu ñuy def ci ay yoo xamante ni yoo am solo la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala digle ndax bu dee julli farata loolu suñu borom dala koo gàll nga def ko wàccu la defoo ko wàccu la fekk amoo ngàll waaw nga def ko wàcc xëñ na yooyu war-war la boo xam ne mu ngi gàllu ci yow loolu nag nit ki moo koy war di bàyyi xel bu baax a baax xam ne ah weeru koor daal am na sart yoo xam ne kii na bi nga naa biñ gëmmee wóolu nangu ne ñu ngi ci loo xamante ni ci ponk yi lislaam yi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala def na ko yooyu yëpp ñu gis ni kon war nañ ko gën a fonk war nañ ko gën a jox gëdd war nañ ko gën a maandu ki def jox fulaam bu baax a baax ci biir yooyu li jafewon ci ñepp muy jakkay fess ci weer koor la yam day gis ñu bëree bëri dañuy yittewoo jàkka yi dañuy yittewoo euh, nafila ji dañuy yittewoo julli mbolo dañuy yittewoo euh, lii jàkka di di kii rek day gis dañ koy yittewoo bu baax baax lo ci biir weeru koor ga koy gëna a bu dul weeru koor da ngay gis ñoo japp ne goor ñe wara julli ji goor ñi itam pay ñoo wara dem lu dul ñi nga xam ñoo xam dëgg-dëggu joxe li nga xamante ne mooy euh, farata bu fekkee ne itam da ngay gis ne ñent ci jigen ni bu fekkene dem nañ boy julli ji itam ay maire lañu ñuy doon ñu magget lolu ñen ñi japp nañ ni ajimu wala yenen ki ñooñu rek la war waaye ci biir wéru koor ngay gis ni dañuy mas ñom ñepp gis ni ah dañu wara dem ci jakkay ya, dañu wara dem julli ji dañu wara dem nafila ji ci biir wéru koor ngay gis ni alquranul karim bi nga xamne ci lañ ko wacce day jo day jotaat gëdëm bu baax baax dañ ko joxal gëdëm bu baax baax ñen ñi diko jangalu ñen ñi diko jang jang ñen ñi diko jangale gën ko fulal te itam di déglu li nga xamé mom la Alxuraan wax ci biir wéru koor woowu ci biir wéru koor ngay gis ni li nga xamone ay conférence day waxtaani diiné ci lay dundal bu baax baax barab bi ñu da ngay gis euh li fekk ci li nga xam modi di wi toll ñetti jooni nit ci teunk lo xamanteni ni ci xayma bu ndaw bo xamanteni def muñ nañ ko def lool lepp ñuy deglu ci yalla neena yonti bi neena xeyna bok mag ñu baax ñu neena neena lolu amna na lu muy def amna lu muy firndeel am mu ngi koy def ci digënté bu baax baax ci biir wéru koor ngay gis ne lepp lo xamanteni euh né nañ day yakkor nga jëm moy tan ko xam nga né ndax lolu méngóot ak li wara nek ci biir wéru koor ngay gis nit ki du wax lu ko neex ndax lan nee na ci biir wéru koor ngay gis nit ki du wax ne duma xol luma neex ndax dama wor ci biir wéru koor ngay gis nit ki du wax duma dox dem fama neex ndax dama wor ci biir wéru koor ngay gis nit ki du wax ne fuma neex dem. jotaay bu ma neex toog ndax lan dama woor di sàmmante di màggal li nga xamoo di weeru koor kon weeru koor bari nañ ngëneel weeru koor spécialité la weeru koor ngëneel la tel tànneef la taxsis la fadaayil la yoo xam ne nekk na ci bu baax a baax kon loolu yëpp nag dañuy màng ñun ñëpp ànd maase gëm suñu borom déggal ko nangul ko jubboo ànd booloo waaye nag li ci gën am solo nag mooy nañ fexe ba weeru koor buy dem am yu ñu bàyyee ci yooyu. am yu ñu bàyyi ci yooyu mais nag buy dem nag warut a yóbbaale yëpp warut a yóbbaale yi ñu doon def nii ma tudd nii yëpp spécialité bi ne donte ci moom lañ ko war a def ci moom lañ ko war waaye nag war nañoo bàyyee loo xam ne fu mu mën ñu gis ne lii kat weeru koor bi mu ñëwee daaw moom la ma bàyyee lii desewaat na naa fexe mu bàyyee waat ma leneen waaye du dem nag yóbbu lépp nga yàkkamti mu jeex nga delluwaat na nga sama niin nga yàkkamti mu jeex nga delluwaat ci sa liberté nga yàkkamti mu jeex nga delluwaat ci noo xamante ni da ngay gis ne xëy na nga xam noonu la diine kii ko la laal moo kon nekkoon ñu leen indiloon tey mu am solo ak gindeeku la ak géndeeku bu am solo ab seet la boo xam ne képp koo xam ne bàyyi nga ko xel mën na laa jëriñ fii ak fan jëm mën na laa tax itam ñu la nangul sa koor bu baax a baax kon nag ñi lañ fas yéene di ànd ak yéen rek saa su nekk waxtu ne ci site bii di Timis TV euh, sur net euh, sur YouTube incha allah euh, mu nekkoon Oustaz Ibrahima Tine ci waxtaanu koor di leen jox dig daje incha allah. ci yenen ci benen waxtan bo xamanteni inshallah incha ci in uridu ila islah ma sataatu wa ma tawfiq ila billah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh